joxuma ministre joxul Touba ministre joxuñu directeur galoba mi ñu jël Mbàkke googu mënul dara té ñi ngi and ak mom muy sacc xaalis bi diko tabax ay tabax muy galoba mom moom. Gallo wax ba président def ko ko man duma nuyu mais dana jóg fi mu ne benen bi moy ministre mi ñi ci bëree bëree bëri bés bu ne li ñuy defal ab tiaga rek lañuy jox ay 100 millions dix millions fan lañu jël jëlee bi DRP yi nga xam ne ñi ngi koy def muy DRP yu bari, ñi ngi koy jox tiaga ji rek.